bon patriote yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax di wax ne suñu frer euh, Ndiaye Touba actuellement mi ngi cybercriminalité parce que euh, wax nañ ma ne ndaw soosu nekk euh, Sen TV Ndeye faatu Ndiaye moo ko def benn plainte yóbbu ko foofu di wax patriote yëpp ñu yëgee ko noonu te xamee ko noonu te xam ne loolu mboolem koy wax fii bu mu tax nga arrière bu mu tax nga reculer ku toog ci émission song président Ousmane Sonko na ngeen ko songu massivement ak ku mën a doon bu leen neexee nañ dem tribunal de la haie gis nga du ñun nangu kenn koo xamante si nii da ngay toog ci plateau yi di fenal président Ousmane Sonko du duñ wax ak yow ak koo mën a doon booy boo nga bind téeméeri plainte ak fukk ak juróom-ñaar sëñ bi loolu du am coup yi tànk yéen a ngi koy joxe coup yi day ñëw loolu moom amul lii amul laa loolu gis nga loolu boo ko bañee nday Fatou Ndiaye boo ko bañee da ngay tëj sa micro wala sa micro nga ciy wax dëgg te yàlla tax mais boo ci waxee lu waxul président Ousmane Sonko gars yi dañuy génn tontu la amul pelent amul ñàkk pelent yoon moomoo leen ko justice bi moomoo leen ko loolu daa war leer freer Ndiaye Touba ñi ngi sa ginnaaw ñi ngi sa kanam waaw ñi ngi sa ginnaaw ñoo ngi sa kanam bëgg joxe ku te nanguwoo ku la jox ku bu ngeen toogee ci plateau yor seen micro yi taal seen caméra yi bu ngeen xëyee dal ci kaw gor ñi bu gars yi tontoo ngeen na am ngeen am lu leen metti naan da ngeen di pelante ji. loolu su ngeen ko bañee da ngay tëj sa micro wala sa micro nga ciy wax dëgg tànk yaa ngi ciy sosal président Ousmane Sonko téeméeri njaay Touba di la tontu.